man damay euh, rebondir ci li nga xam ne moom la Birahim wax léegi xam nga euh, man damay wax ne euh, tey jii li nga xamante ne moom mooy coalition benn Bokk Yaakaar comme ni ko Walf Quotidien titré sànq léegi Macky en tout cas deux au mur pourquoi parce que déjà man damay jàpp ne majorité bi nga xamante ne yaakaaroon nañ ko premièrement amuñu ko ci élection législative yi nga xamante ne génn nañ ko en juin léegi nag ñu ñëw xaw a tolloo maanaam neexoo ak ñi nga xamante ñoom ñoo fari ci kujje gi ñu am député euh, députés ak euh, député euh, li nga xamante moom mooy assemblée nationale opposition bi maanaam ku jegi am lu toll ni 80 te loolu lan moo ko waral boo ko seetloo muy pap Diop ni mu rejoindre li nga xamante moom mooy coalition majoritaire bi di Benno Bokk Yaakaar alors tey je pense que majorité ci li nga xam moom mooy assemblée nationale tey jii réellement on ne peut pas nier maanaam mënuñu xel ñaar que ne li nga xam moom mooy Benno Bokk Yaakaar ñàkk na li nga xam moom mooy majorité foofule ca pencum ndaw réew ma ndaxte boo ko seetloo premièrement. Euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy Pape waa Pape Diop ñëw nañu renforcer euh, li nga xam moom mooy kii mais malheureusement euh, ñu xool ci ñi nga xamante ne peut-être ñoom ñoo bokk ci Benno Bokk Yaakaar ñu bëri ci ñoom tey jii bu fekkente ne dem nañu ba ci kanam ñu gis par exemple parti bu mel ni euh, AFP bu Moustapha Niass député yi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci parti boobu euh, peut-être Moustapha Niass génn wala keneen génn ci parti bi indi euh, samp ndëndam wala affaire yu mel noonu wone li nga xamante moom mooy maanaam bëgg-bëggam ci élection présidentielle yi ñu dégg parce que loolu moo indi xàjjaloo diggante APR ak li nga wala Benno Bokk Yaakaar ak parti bi nga xamante moom mooy réew mi donc bu ñu demee ba beneen parti ci biir coalition Benno Bokk Yaakaar amaat yeneen ay kàngam yoo xamante ne génn nañu ñu samp seen dënn alors lu mel noonu amaat donc je pense que réellement euh, li nga xamante moom mooy euh, parti bi wala coalition Benno Bokk Yaakaar day ñàkk totalement li nga xam ne moom mooy maanaam majorité ci li nga xam moom mooy euh, maanaam assemblée nationale léegi nag comme ni nga ko waxee sànq dafa mel ni ko kii nga xamante ne moom moo génn bokk ci réew mi noonu la li la ba la en tout cas lay doon buñ buñ buñ ko jàppee noonu ndax dafay ñëw opposition bi xejal ko am déet mais li nga xamante ne moom la ñu mën a jàpp jamono ji mooy moom déjà ak position bi nga xamante ne am na ko ci lu jëm nag ci wàllum politique ak taxawaay bi nga xamante moom mooy assemblée nationale euh, bu ñu jàppee ne euh, tey jii mën na indi un poids ci li nga xam moom mooy coalition Benno Bokk Yaakaar je pense que euh, est-ce qu'on se trompe pas par rapport ak euh, li xew assemblée jamono ci. ñu a poser benn question bi Birahim est-ce que Aminata Touré ba léegi député la na Aminata Touré député la ba léegi wala. Ah, parce que jëlee nañ la moo tax nekkul député. waaw loolu c'est son combat actuellement. voilà loolu c'est moo tax nag. mais xam nga lan mooy différence entre ak euh, euh, la dame député Dieng bu bu réew mi mooy ni Aminata Touré a eu son mandat de député grâce à. l'APR et Benno Bokk Yaakaar APR surtout coalition Benno Bokk Yaakaar est-ce que tey réew mi dafa demal boppam ci élection présidentielle 2019 est-ce que réew mi dafa demal boppam ci élection ci législative yi foofu mooy deuxième question bi mooy moo tënk bi à l'Assemblée nationale parce que benn coalition la ñu jàll ci élection législative c'est ça bu ñu dàqee Aminata Touré à l' dañu war a dàq ndaw si à l' assemblée nationale. Ah, kon wuute nekk député non aligné parce que du député réew mi député coalition Bokk Yaakaar la. Mariétou Dieng xam nga honorable député Mariétou comme la question li tax ma doon wax sànq ne ni euh, aujourd'hui un cas se se se pose parce que même bu fekkee ni Benno Bokk Yaakaar moo tax nga doon député dañu wax ci biir réglement intérieur assemblée nationale. député non membre d'un groupe parlementaire lu ñuy woowee les non inscrits mais tout député même membre d'un groupe parlementaire peut dire que man bokkatuma ci groupe parlementaire bi parce que ouais. seen doxalin wala seen gisin wala nañu fonctionner d'accord ma ci am naa sañ-sañ man en tant que député élu ma génn mais sauf que assemblée règlement bi daf la nekk boo génnee doo wàlliyaani dugg ci beneen groupe beneen da ngay nekk non inscrit léegi nag comme j'ai dit tout à l'heure sur le plan politique purement politique ah. lu bokkul ak réglement intérieur assemblée mën nañu wut ay pexe pour génne la carrément carrément assemblée nationale parce la ñuy bañ mooy justement li nga doon wax euh, tembo boobu am kii ëpp la kii daanaka jege na mu war a indi problème boo xam ni sur le plan euh, électoral wala sur le plan du du vote des lois euh, sur le plan même politique ku ci nekk da ngay bëgg fëgg sa euh, dënn ne ni majoritaire mm. opposition bi parce que si tu rejoins un group euh, parce que y a les non inscrits am na Thierno Alassane non inscrit euh, la Pape Djibril non inscrit la Pape ba mu fa nekkoon jël na ka fa ka ko remplacé di Moustapha Moussa Diakhaté di Moussa Diakhaté mu féete ci Benno Bokk Yaakaar parce que rejoindre na Benno Bokk Yaakaar mais nag ce sera purement politique c'est une question politique la réponse sera purement politique purement politique ñu ci mbirum règlement parce que bu dee ci règlement intérieur la ñu am na ci plein droit. am na ci plein droit mais mais mais mais euh, est-ce que kon Baara Yugo bi ñu doon samp du ñëwaat bu fekkee waa APR ak waa coalition Benno Bokk Yaakaar mun nañu accepter ndaw si démissionné ci seen groupe parlementaire. te toppuñu ko taañaañal ko comme ni ñu defoon Aminata Touré. sa pose problème. doom histoire politique gu Sénégal wane na Baara Yogo bu gën a boobu wane na Baara Yogo bu gën a dis boobu quand je parle Baara Yogo du du du rek xëy na dëgmal élection présidentielle mais garder jaxteg libéral comme ni ko Abdoulaye wadd annoncé woon ba nga xam ni sàkkal bexe benn parti ci wàll politique wala benn benn ngëm-ngëm benn idéologie ci wàllu politique moom muy gën a yomb sàkkal ko pexe ci ki nga bokkal benn gëm-gëm njabootu libéral mënaguma génne ba léegi parce que démb ñu ngi koy wax fii dañ ciy dellu soit càlla euh, ba léegi ndaw si démission ci groupe parlementaire mu ngi continuer di dominer pratiquement ci presse bi. Mm-hmm. opposition bi ba léegi ay activités am bariwul siiwul bu nekkul arrestation journalistes yi ak yooyu. donc toujours ñu ngi wax ci diggante Idrissa Seck waaw euh, convocation journalistes yi Idrissa Seck Macky Sall démission bi mais ndaw si ak lu mën di xew. mënuñu waruñu ko mën a jaarale du fi ñu jaarale Aminata Touré mi nga xam ne moo nekkoon tête de liste diriger campagne bi gagné élection yi benn euh, mënu mu sax jàpp ni waa benn bokk yaakaar dañu am majorité à l'Assemblée nationale parce que ci histoire politique gu Sénégal mu ngi ñu ngi soog a génn ci élection législative ñuy dëbbee diggante opposition ak pouvoir ñuy dëbbee euh, tey bu fekkee am na lu ñuy assemblée na gàddu gi parce que dafay am toujours ay défaillance ci opposition bi par rapport ak ni ñu ko digge woon askan wi muy coalition Bennoo ak Wàllu parce que yi nga xam ni ñooy compléter lim bi pour opposition bi di dominer pouvoir bi bu ñu eggee euh, à l'Assemblée nationale am na ñu ñuy monter ci opposition bi ñuy saaga député yooyu ba bu ñu leen fekkee ci manifestation ñu xëpp leen suuf comme ni ñu ko defoon Pape Djibril Fall pour mën leen a décourager ba bu ñu demee à l'Assemblée nationale du ñu dooleel opposition bi ci loi bu ñu saxal wala dogal bu ñu rëjal assemblée nationale méthode la parce que boo boolee li aligné yooyu majorité bi ñu dootuñu ñu leen ëpp ay député ok euh, loolu benn la beneen bi ci des dañuy jël benn dogal pour am lenn lu ñu def ñu ni ñii ànd nañu ci ñii ànduñu ci mais wallu ak Benno Bokk ya wallu ak euh, Yewwi Askan Wi diggante bi ñu demee à l'Assemblée nationale mënuñu féewaloo ci ay kàddu ba bi ñuy dàq Aminata Touré ñu ni seul député wàllu yi ñoo sabab dàquk Aminata Touré mais waaye yi dañoo bañ maintenant mennum jëmm Aminata Touré mi nekkoon seen opposant principal di leen cartonné fa fu ñu dem mu fekk leen fa campagne al Macky Sall ci élection législative yi Aminata Touré moom moo féewalewaat seen alliance bi ñu ñu proposé woon ci législative yi dam naka jekk dama waxoon ni c'est pas vrai musuma gëm boobu la alliance et histoire bi am jox na ma raison noonu lay demeewaat nañu xool ci ndaw si ba xam bu ñu defee ñoom waa Benno Bokk Yaakaar comme li ñu defoon Aminata Touré sàkkal ko ay pexe loo leen seen caqu député ñu takkal ko baneen keneen ku bokk Benno Bokk Yaakaar daañu wax waaw mais bu ñu bu ñu deful li ñu defoon parce que li tëbal Aminata Touré moo gën a jafe tëbal ndaw si à l'Assemblée nationale am ñu pexe comme ni nga ko waxee purement politique quinzième euh, position ci liste comme tu dis nationale Bokk Yaakaar sa veut dire ana tête de liste ba nag mënoo dàq tête de liste bàyyi quinze ans euh, coalition boo xam ne réew mi dafa ñëw alliance si benn mbokk yaakaar mais réew mi comme la wàllu doon wax ci seen ba ñuy def intercoalition ci jëm élection législative que dañoo àndandoo ci jëm élection législative pour gagner parce que li ñu doon wax mooy que gën a fort ci benn département bu bokkee yeewi wala wàllu lañ jël kooku teg réew mi ne ni tey Thiès maa fa gën a fort. Mhm. yéen donc te Benno Bokk Yaakaar dañoo bokk mais Benno euh, maanaam APR ak ñu mu àndal ak réew mi nañu àndandoo ba ñu investir Mariétou dien ci quinzième ci liste nationale pour que ci biir Thiès nañu waxee ni Idriss Seck moo fa fort euh, Benno Bokk Yaakaar mën fa am ay ndam ci biir Thiès donc ça reste euh, compliqué mm. puisque ñaari coalition euh, enfin ñaari parti politique wala benn parti bu dugg ci biir benn coalition mais tey génn na ci coalition bi est-ce que de facto le cas Aminata Touré va se poser encore euh, euh député euh, Mariétou Dieng c'est aujourd'hui la grande interrogation mm. balaa ngay jeexal. Euh, ñu ñu tënk ko vite fait Lamine tax dañu war a jàll ci l'évidence euh, en tout cas euh, bu ñu soolee ci bu ñu xoolee ci dernière sortie am. jusqu'à preuve du contraire nee na gisagul benn note boo xamante ne notifié nañ ko que ne moom dàq nañ ko assemblée nationale est-ce que aussi loolu mënu tax ñu ñu am xel ñaar ci li nga xam moom mooy li ñu bëgg a gëmloo que ne dàq nañ ko et aussi est-ce que jusqu'à présent Aminata Touré amul benn issue pour mën a xeex li nga xam moom mooy en tout cas mandat député am seulement c'est une question mais xam nga lan moo doon différence entre le cas Aminata Touré et le cas de Mariétou Dia mm-hmm. Aminata Touré euh, waxuma ni amul ay nit ci ginaawam de sur le plan politique mais du parti politique bu dul APR moo ko porté tey Mariétou Dia dafa am parti politique bu ko porté muy parti réew mi am président am ay membres doon un parti boo xamee ni quoi qu'on puisse diir bu ñu xoolee ci élection présidentielle 2019 euh, njiitam moo nekkoon deuxième ci wàlluk élection yooyu ñu weesu ça veut dire que moom Marie Étudiant dina am euh, ndëgër laay ndax am na parti bu nekk ci ginnaawam bu bokk ak moom ànd ak moom ci wàllu woowu c'était peut-être pas le cas de Aminata Touré qui a quitté un parti muy l'APR ak benn Bokk Yaakaar et qui s'est retrouvé peut-être seul avec ses militantes euh, yoo xam ne euh, bon nattaguñu leen parce que demagul moom ci élection bu mën a doon pour ñu mën a xam quelle la force de Aminata Touré seul avec un parti ou avec un mouvement bu bokkul ak ba mu nekkoon di APR. Euh, muy l'évidence mu ñëw ci suñu naataango taskatu xabaar yi nga xam ne fi mu ne ji euh, jafe-jafe yi euh, pare na ci ñu bari na ci ñoom gannaaw Pape Ndiaye maintenant on parle de Babacar Touré Moustapha Diop yi nga xam ni yoon woon na leen jamono ci lan mooy problème bi exactement est-ce que du sànq li ma wax dañu dem ba li nga xam ne moom la ñu jàngal mu éthique ak déontologie dañ ko dañ ko teg fële. voilà donc ma lay suñuy doyen yi toog ci plateau bi voilà donc comme ni nga ko waxee l'évidence dafa xëy ci information boobu noonu peut-être nag li tax exactement ñu euh, xamante ne bi tey moo sabab convocation bu ki nga xamante ne mooy Moustapha Diop parce que selon des informations yi nga xamante ne jot nañu ko nee nañu Moustapha Diop dañ ko convoqué pour mu témoigner par rapport ak Boubacar Diallo Boubacar Touré donc Babacar Touré nag euh, xamaguñu man xamaguma boog exactement les motifs de sa convocation mais fausse nouvelle oui donc euh, diffamation donc nekk na loo xamante ne bi peut-être euh, war na moom moo tax ñu convoqué ko mais euh, fi may accès mooy par rapport ak convocation des des des hommes de presse ñoo xamante ne bi ay journalistes lañu taskatu xibaar lañu tey buñ nee dañuy convoqué ñoo xamante ne bi tey seen liggéey mooy tas xibaar te dañoo am charte yu leen yu leen tënk nekk loo xamante ni aussi dañ ne liberté d'expression dafa am mais tamit teg ko ci yoon sa liggéey ñu ñu xëy di leen convoqué parce que dañoo joxe information bu nekkee nag da nga joxe fausse nouvelle wala nga def diffamation loolu après dinañ ko leeral ci kanamu yoon mais de toute façon li nga xamante ne bi tey moom moo di euh, convocation de nos confrères les journalistes nekk na loo xamante ne bi tey war nañ cee mën a war nañ war na war na mën a jeex ci réew mi parce que boo xoolee euh, depuis quelque temps yaa ngi dégg ay arrestation yoo xamante ne bii ay yoo xamante ne ay ay taskatu xibaar la ñuy la ñuy arrêté te ñii ñii arrêté ñu si bëri wala ñi convoqué ñu si bëri nekk nañ ñoo xamante ne bii am nañ ñu def entre guillemets ne dañoo faree benn côté moo tax ñu leen di ciblé di leen convoqué euh, tout le temps donc nekk na loo xamante ne bi tey loolu la l'évidence xëyee comme ni nga ko waxee wala régime bi la euh, lan moo xew exactement parce que dem nañ ba dañu gis ne journaliste yu bari bu ñu toogee ci ci ci euh, plateau yi sax